mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak kontaan te dellusiwaat seen émission ëttu ndaanaan ëttu ndaanaan nag tey ñu dalal ndaanaan boo xam ne ñu ko présenté ci réew mi ak bitim réew tey nag dañ ko ñëw seet si mu euh, indi ñu si téeram bu ñaawul bi euh, Abdou Ndim nga xam ne moom lu mu ñawul baaxul borom si sa or bi am naa maa ngi koy nuyu euh, mais Fadam maa ngi lay nuyu di bëgg ci nangu gi ma nangul ñëw ëttu ndaanaan waaye dama koy wax man yéen artistes jigéen yi nga xam ne man dama leen a dama leen a parce que yéen ay jigéen ngeen yoo xam ne ay jàmbaar ngeen parce que bureaucrate day yeewu këram jël euh, saagam dem bureau liggéeyi yéen ngeen xëy huit heures euh, jël seen saag def ci seen ay tenue jóge seen kër huit heures des fois bu ngeen fa duggee minuit la vingt trois heures fekk leen ci àll bi donc ay jigéen ñu jàmbaar ngeen yoo xam ne te lépp depuis ngeen nekk ci aar ba léegi yàqu leen ci dara euh, Ndama maa ngi lay nuyu ci ëttu ndaanaan. <laughs> El Hadj fay naa la ci ëttu ndaanaan di nuyu waa Sénégal yëpp. Mhm. di nuyu. fans yi gannaaw loolu ma ciy jiital samay ñaari waajur yi nga xamante ni ñoo ma jur macha allah leen di ñaanal ñu yàgg fi lool te mhm. di jiital tamit ci nuyoo bi ki nga xamante ni mooy waa kër Serigne Touba rawatina waa kër Sëñ Fallou. Mhm. di dugub biir kër Sëñ fàllu di nuyu Cheikh Ibrahima moom Sëñ Fallou. ak soxnaam soxna Ami Mbacke. Mhm. maa ngi leen di nuyu nuyu Touba gépp waa di nuyu tamit ki nga xamante ne ni si tey jii. mooy Abdou Ndim di sama xarit di sama wóllëre di di ku foor ci man ndeysaan barke borom Touba. Mhm. ku foor ci man la waaw ndax xale bu baax la mhm. te gis nga tey teraanga gi mu def yëpp mhm. di jaalewu tamit ñi nga xamante ni mooy waa àdduna waa diaspora ñu ngi leen di jaale suñu papa ji nga xamante ne ni si moo fi jén muy papa coon ñu ngi koy jaale bu baax a baax di wax suñu freer Waly yàlla na ko duddoog jàmm te yàlla may ko xol bu mu ko muñee wax dëgg yàlla kon maa ngi sargalaat ñëpp mhm. nuyuwaat ñëpp waaw mu ngi noonu mhm. Bella papam noppaliku moom itam mhm. ñu ngi koy jaale parce que kooku sama rakki xol la <laughs> sama rakki xol la wax dëgg yàlla ndax ba ñu dalee ànd ba tey dara ñaawul di nuyu waa jànkin production yëpp commencé ko ci Papa Cheikh ba ci suuf maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay. am na solo mi ngi noonu euh, Bella lañ euh, ndaama lañ amoon seen ëttu mm-hmm. ndaanaan ñuy nuyu Bella suñu jigéen boobu nga xam ne moom wax dëgg yàlla euh, jàpp na ci émission bi xam naa bu ñu ba ci biir émission bi sax mm-hmm. xam naa ak yii nii ci biir nii moom lii moom <laughs> tarkaal la <laughs> ah, mais ndaama bu ñu bëggoon xam kan mooy ndaama à travers art ndaama art bi daf ko jàng wala xam nga des fois nit dañ koy gis mu neex rek ci koñ. Mm-hmm. li muy ki dafa neex ki dafa war a def théâtre yow loolu moo la booleeg art wala daf ko jàng. waaw El Hadj man su ma yeboo ma ni dama ko jàng hmm. ndax euh, bu weesoo sama waajur bu jigéen hmm. aar lay def ndax euh, Manufacture des Arts Décoratifs de Thiès hmm. fa la nekk ba retraité tey kon ci culture la nekk doon ci liggéey yàlla def ma nekk la joor di jàng sixième ba quatrième secondaire. Mhm. Euh, Maxa Sëy ak euh, Ousmane Kane. Ousmane Kane ñoo ma yoroon école la Dior di jàngal théâtre ñu daan def boobu ci ouverture de foyers ñu fa daan def théâtre et mhm. ci loolu lañu ñu ba ma jógee foofu dem comme de larmes. comme des larmes comme des larmes ñu fa nekkandoo woon maxasey aussi moo ko yore woon. Mhm. fan la nekkoon booba. Thiès. ah ak euh, ñoom Sanex ma koy nuyu de passage. sama càmmiñ loolu. Euh, Vieux Ba. Mhm. Euh, nuñ ko Bella. Mamba ñam si yàlla si ak Modou Pousse Pousse. Modou Pousse Pousse Cheikh Ndiaye ñun ñëpp ñoo nekkoon biir comme de larmes. ok ñu nekk foofu di fa liggéey. ba yàlla mi dara tëwul. boobu troupe la woon wala association la woon. troupe la woon. troupe la woon troupe comme des larmes maxasay yoroon ko mhm. bi ñu fa nekkee ñu dem ba ba un certain moment mhm. man ma de Dianken production en 2000 laa ko fa dugg ok ci troupe bi ci mhm. boobu président bi mu ngi nekkoon Moussa Seck ah Moussa boobu boo daan dugg Dianken da nga daan def euh, da ngay bind une lettre def ko joxe ko après ñoom ñoo lay woo teste la xool ba xam ndax aar mi ngi ci yow. waaw biñ may testé ñu ma teste ci jalgati. jalgati waaw jalgati. jalgati bi may jóg di laajte sama lamu or. Hmm. ci loolu lañ ma testé. jalgati benn PS la foog naa bu doon jaar RTS. waay RTS la doon jaar. ok RTS doon jaar. en 2000 boobu nga njëkk a génne boobu nga njëkk a fàttaliku boo defee boo génnee bu ñu tegee caméra. waay. Mhm. ma tegee caméra boobu la. parce que yi ci des dañ daan dem comme amoon nañ benn kii boo xamante ne ni si benn pièce boo xamante ni mu ngi tuddoon euh, kii nu mu tuddati waaye euh, yombal xiyaam. yombal xiyaam yombal ah, xiyaam ah, boobu ñoo doon dekki ci armeel bi dekki dekki. ah doonoon ay néew. dekki kenn ku ci nekk ngay bind ñu jox la. comme par exemple malaaka mi jox la feuille ak bic ni la ku nekk la nga nekkee woon àdduna bind ko ah, ah. loolu defoon nañ ko benn tournée nationale ñun ak waa comme des larmes mhm. ñoo ko doon ñoo ko àndandoo woon ñoom Cheikh Ndiaye Vieux Ba ainsi de suite ñun ñëpp waaw vraiment mu mel ni bi nga fa jógee jaar nga Arcos non Arcos du troupe ah du troupe non non mais dama formation en def nga formation Arcos mhm. parce que Arcos je suis la trésorière générale de l'ARCO de Thiès. waaw hmm? ba nii ba nii ba fii ñu toog. Euh, Jules Dramé sama ndijaay moom mooy le président de ARCO. Bella moom mooy moom moo chargé wu communication. Mhm. Ndeye Sine moom mooy secrétaire général. Mhm. Mhm. ba nii ARCO du du troupe. ARCO c'est une association reconnue par l'État. ok association des artistes comédiens du Sénégal. Mhm. loolu lay signifier ACOS ñuy liggéey liggéey bu am waaw ñu ngi ciy sant nag parce que dañuy wax ni peccum liir bu neexee ndey jaay jàpp ca wagg mhm. ndax tey ji ñun mënoon nañoo nekk ci biir arko te xale yi duñu nangu mais xale yi ci boppam ñoom ñoo nangu jox ñu seen lépp ñuy àndandoog ñoom ci lu leer di ko teg. ci loo xamante ne ni ci ay charte la yoo xamante ne ni si ci biir euh, arco la charte yooyu jóge ba ci arco national et tout képp koo xamante ne amuloo carte de membre doo nekk biir arco lépp lu ñuy joxe timitam biir arco timitam te amuloo carte de membre doo ci jël parce que nit ki lu muy def lu muy lii rek même soo dee artiste parce que nit ki timitam lu muy wuyoo da koy nuru soo ne man artiste laa war nga définir et puis nga bëgg a dundal art ban artiste nga parce que artiste plastifié mu ngi ci artiste comédien mu ngi fi artiste leneen ak leneen mu ngi fii kon tey jii nii soo ñëwee association bi tey boo demoon tey di defi ci sa passeport wala bu dem voyage dañ lay laaj sa sa sa carte de membre ARCO parce que moom la état reconnaître kon sant yàlla ba nga xamante ne nit ñi xamee nañ ko noonu ñëw bokk kook ñun ànd kook ñun ma ci nuyuwaat bu baax suñu président Jules Dramé. Jules Dramé. Mhm. macha allah am na solo xam naa nag dañuy génn foofu tuuti. Mhm. dugg nag ci euh, euh, Fadam. Mhm. Euh, sa doom bu jigéen jaari suñu xarit boobu loo mën a wax ci moom xam naa dama bëgg sax ñu si daan extrait bii nii doo ko doo ko ñëw. day wax ne doom ndey ji da koo jege bu koy nàmpal da koy xool ñu amoon interview nag ak ndaama ñëw seet si woon doomam bii nga xam ne dafa sax loolu ci xolom muy benn benn ci yaayam. Euh, ñu bëgg lu ko neex lool xam naa lii bu ko seetaan dina ko neex parce que dina nekk surprise ci moom euh, ñu ñëw nag fekk ko ci liggéeyukaayam ñu bëggoon ko laaj euh, digganteem ak yaayam ndax aar dafa metti xëy sa kër huit heures yenn ci tournage yi bàyyi sa njaboot ndeysaan loolu dafa metti daal maa ngi lay nuyu jaari maa ngi lay fay noo def. jaari bu ñu la doon laaj kat mooy Ndama nga xam ne mooy sa yaay. relation yi ngeen am xam nee na sax dégg sa xarit la de. dëgg la moom sama xarit la. Mm-hmm. moom damay sawar di wax ci moom à toute fois parce que nit ku baax la nit ku laabiir nit koo xamante ne xolom daf ko jege te mun naa ni euh, waajur buy dimbali doom la waajur buy dimbali ñu nekk ci mbedd mi la ndax tey jii ni këram boo fa duggoon nga ne ko ndaama lii nii ma fekk sa kër gi kat dafa rafet wala dafa def nàngam boo ko fa boo ko jëlul rek yaa ko fa bàyyi. nit ku mun a supporter ñëpp la ku mën a defal doomu aadama ku am yiw mun a yar doomam yaraale ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bañ na ko ba benn doom la am muy man mais teewul kër gi boo fa duggee njabootee na waa kër gi njabootee waa koñ bi njabootee ñëpp mhm. waaw lan moo la gën a marqué tey wu ñu yoon sa yaay lan moo la gën a marqué ci moom li ma gën a marqué ci moom mooy euh, dafa nekk nit koo xamante ni dafa dafa dafa compréhensif dafa compréhensif lool ndax mun naa muñal nit lu nekk am na xolu yërmande te tey jii nii des fois damay génn ci mbedd mi ne ma sa yaay ba xam ni mu mel ci théâtre bi noonu la mel ci kër ga je me dis non melul noonu ci kër ga parce que nit ku ouvert la nit ku yaatu te des fois da seetaan mu jouer dara daf lay touché parce que dafa yeete te li muy yeetee noonu li muy yeddee waa mbedd bi noonu lay yeddee waa këram man loolu lu ma neex la ci moom. nga xam ne naturellement li muy joué dafa nekk ci moom euh, mais booy togg di seetaan sa yaay ci théâtre bi muy éduqué euh, lan la lay def. ah daf may daf may neex parce que dama xam ne dafa yar njabootam déjà ba pare jàngal nañu diine. yar ñu ci jàmm ak salaam tey jii nii njabootam manqué wuñu dara lu ñu soxla lu nekk rek da siy xar tànk tubéyam mu xañ boppam sax jox la moo ko moo ko gën a yitteel que muy muy muy muy defal boppam à tout moment déedéet tamit euh, soo ko gisee muy jouer yow dangay xam ni kii li muy def nii comédie la rek. Mm-hmm. mais bu ñibbisee biir këram mbubu boobu noonu da koy simmi tegaat ko sol mbubu kër ndax dama naan jeeg la ci biir kër ndax foo ko fekk bu xëyee dina bale dina fomp te bu waree togg dina togg taajal njabootam te ku mën a joxe ñam la ku mën a joxe ñam moom ngeen di invité nii tey mm-hmm. ku mën a yor nit man su may wax ci moom daal damay am ay euh, sentiment yoo xamante ni daf may toucher tellement parce que nit da nga koy waxal li nga xamante ni mooy jikkoom te loolu laa gis ci moom. Mm-hmm. nit ku baax nit ku yaatu nit ku laabiir depuis ba ma nekkee xale ba tey moom rek laa xam. moo ma yar ba ma toll nii te lu ma am lu nekk moom la lu ma mën lu nekk moom la te moom laay tiitaloo moom laay ndamoo. dama koy wax ni ko sama xol bii yow rek laa fi def <laughs> je t'aime tellement que mënuma la tëkkalee ak keneen mënuma la tëkkalee ak keneen ndax sama complice nga tamit euh, doom dafa dafa dafa doy waar ndax des fois di nga nekk ak sa doom xëy na erreur du ñàkk des sa doom mun na def dara mais teewul lu mu mun ti def rek yaa ngi koy jubbanti di ko tegaat ci yoon man dama lay wax daal dundal dundal ba say may di baawal yàlla bàyyi ñu fi yokk teraanga yi ak xewal bi ba ma mënuma la fay lépp nag mais yàlla def na ni liy ñëw mooy dàqali suñu kanam parce que xéwal bu fi wàcc rek dinañ ko bokk bu soobee yàlla. waaw mais ngi lay kontaane eh, di bëgg ci yow. maa leen gën a kontaan gën a bëgg ci yéen. merci beaucoup Rouba Seye euh, mi ngi noonu. mi ngi noonu xam naa ne ndaama. Euh, li wolof di wax rek euh, noo gisee sa doom ji. daf na ci yow ay ay ay ay ay ndeysaan waxee na xol daal waxee na xol vraiment. Uh-huh. xam naa yéen ñaar daf mel ni jege jege ngeen. waaw allah macha allah macha allah parce que bari la benn la ma yàlla jox. Mm-hmm. muy benn ci man di benn ci papaam. Mm-hmm. xam naa ne xolom xolom xolom tooy na euh, li li ñuy li ñuy wax ak nii rek euh, doom ndey ji da caa jege bu koy nàmpal da koy xool dañ euh, li may wax toujours rek mooy aar jigéen ñi ci nekk dañu nekk ay jàmbaar dañu nekk ay jàmbaar dañuy xëy tëj seen kër topp tournage yi xam nga nekk ci ndeysaan ba am na ñu bari dañ leen tegse la jigéen ñi duñu ay sëykat ñi ci amul jëkkër dañu naan ay sëykat te fekk alors que ay sëykat lañ bu ñu jógee tournage summi nañ mbubbu artiste bi sol mbubbu jeeg wala ñu sol mbubb euh, yaay donc wax dëgg yàlla xam naa ne xol bi tooy na euh, xam naa ne rek euh, bëggewuñ ko nii dañu bëggoon lu la neex li lépp belaa la nag ñu koy waaw belaa seen belaa belaa ko jaar j'ai compris <laughs> mais mais loo gisee aar bu njëkk ak léegi yéen yéen yéen da ngeen a dañoo mbapat hmm? mbapat bay bëgg a dee hmm? waaw bay bëgg dee da ngay taxaw sur seen def ba pare papa Cheikh yuuxu la ni la li nga def baaxul nga toog jooy mu teg la fële nga jooy ba sa xol giif mun la yéegal boobaak léegi nag ça fait deux mm-hmm. parce que jamono jooju nangu mm-hmm. dafa am mm-hmm. te élage lu la nangu mayul jaru ngay sonn ci dara ndongo daara bi jàng alxuraan sax mhm. bu nanguwul mhm. dafay toog rekk mhm. mais du fa jële dara kon nangu mooy lépp nangu ñu yilif la mooy lépp gannaaw say waajur war ngaa mën a nangu ñu yilif la te kenn tëbul tëb rekk dugg ci aar dafa am fooy jaar say waajur nangul la ak accepter la ñi nga xamante ne ñoo la yilif muy comme papa Cheikh Jules Dramé njàmbi seen toog ak say waajur waxtaan ak ñoom. Mhm. ci jamono yooyu loolu moo amoon. foo mënti nekk seen xel dina dal parce que xam nañ ni ay responsable lañ la booleel. Mhm. Mhm. ñun jànkeen ñoo daan fanaanandoo ñun ñëpp ci benn nekk. jànkeen wallahi wala zim ñu ngi may seetaan te dinañ ko dégg. góor ak jigéen. mosuñoo nangu ñu séparé ñu. papa Cheikh day veillé ci ñun ba bët set. duñu dem duñu dikk. alaaji njàmbe ñoom ndey seen mama daba parce que nangu googu mooy tax tey ji nga am tey li nga bëgg. Mhm. soo ko tarbiyewul doo ko am. loolu doonul ñoom doo doon taalibe déedéet. Mhm. formation yi ñuy def dañu daan defal formation un mois. Mhm. ferme chaque jour da ngay dem ba mujjantal bi yow dootoo mën. mais danga koy ñefe parce que lan da am foo jëm. am foo jëm. Mm-hmm. tey xale yi tey boo leen tegaloon tey sur scène tey ni leen joué leen sur scène mënuñu ko. ba pare loolu mooy problème parce que xam nga théâtre sur scène ak euh, téléfilm dafa am différence. tey dañuy euh, dafa Sénégal xamuñ ku mën quoi ku siiw la ñu xam mais lan ngay wax xale yi nga xam ne dañoo bëgg aar bëgg nañ ko trop mm-hmm. mais dañ ciy demee dañ ciy demee bëgg-bëgg mais duñ ko jàng ban conseil nga leen di jox wala ban message nga leen di jox. di def formation gis nga lii nelaw ci yow mhm. dafa am lu ko yee te li ko yee su ko yeewee ba pare am njàngat moo ko war a mottali mhm. njàngat boobu bu ko fa fekkulee da ngay tërërëri rek di dem kon nañ jàngi formation nañ def formation art xam lan mooy aar xam lan lay définir xam fan ngay teg sa tànk du taar mhm. du taar de déedéet du taar mm-hmm. du man maa dàq reetaan loo ko toog fee téléfilm d'accord da ngay toog nga def su baaxulee ñu reprendre ba keroog muy baax ñu jël takkale mm-hmm. mais sur scène ci heure ba la ci waxtu wa su la rawee raw na la dootoo ko dabo et puis dafa mel ni sax ku def théâtre sur scène ak ku euh, kuy def téléfilm buñ buñ wàcc buñ nekkee sur rek nga xam ne am na différence bien sûr bien sûr parce que sur scène la mu laaj kiy toog ci chaise am di wax ñuy taqale munu ko mm-hmm. munu ko munul nekk xale yi daal li ma leen di wax mooy defi leen formation mm-hmm. moo leen di dimbali ci lépp fu ngeen bëgg a àgg formation leen fay àggale loolu rek laa mu ngi noonu lan moo la gën a neex ci aar tey ak fi nga jaar ci aar yëpp nga xam ne tey boo ko xalaatee rek sa xol neex <laughs> waaw man xanaa aar moom su ma yeboo ma ni man aw ma ci sax nag loo xamante ni naqar lay doon ci man. Mm. ba ma ci duggee ba tey en 2000. Mm-hmm. ba nëga ni sii ba fii ma toog di wax ak yow. bu weesoo ñoom papa Cheikh yooyu ñu may de di ma yuuxoo yooyu. <laughs> wax dëgg neex yàlla aw ma ci. waaw mënul ñàkk nag. <laughs> waa parce que nit ki boo ko bëggee da nga koy jubbanti. waaw aw ma ci dara lu ma ci lu ma ci lu ma ciy regretté. lenn rek laa xam ne moom neex na ma. ci mm-hmm. sama xol. Mm-hmm. mooy que ni ñett dërëm bu ma am maa ngi ñaan yàlla. bokk kook samay waajur mhm. maa ngi ñaan yàlla timi tamit bokk kook njaboot gi ma yàlla jox mhm. ndax damaa jaboot te ñii dañ ma leen naa may ñii ñi jox ma leen te ñooñu ñëpp sama njaboot lañu waaw moom la ma dénk waaye damaa jaboot kon damay ñaan yàlla lépp lu ma am ci aar yàlla naa ko bokk ak samay waajur bokk ak sama borom kër ak sama njaboot ak képp ku ci yàlla wërsëgal ndax ñun ay taalibe kese lañu. duñu dara. mais ndaam aar dafa métti ci jigéen. métti na ci kaw nga xam ko. Mm-hmm. non sama di bu may wax loolu en fait dama ne dafa métti ci jigéen parce que dañ lay dëkkal foo dëkkut ñi la xamut. <laughs> xam nga jigéen bu xëy huit génn këram ñëwaat këram minuit euh, yar bu yar bi ne ci moom bu bu nekkul bi waral bi ne ci moom bu nekkul ci moom lan la war a def bu génnee. Euh, gis nga éducation de base. Mhm. mooy lépp ci doomu aadama. Mhm. des fois da wax ak nit mun la yoo xanaa jaaroo jardin. parce que dafa am solo ci doomu aadama. te tamit yar bi nekk bi lay say waajur defal su fekkente ne ni si mënulaa jëriñ dara ba nga war a mën a di def leneen loo xamante ne ni si boo toogee wéet da nga koy rëccu. Mhm. kon wër ngaa xoolaat sa bopp. man dey laa wax. man du ma génn sama kër ba sama borom kër sax am xel ñaar ci man xale yi ngay waxal xale yi nekk ci aar bi waaw sa sœur yi sa jalbaat yi sa doom yi sa rakk yi fulla ak fayda rek mhm. liggéey liggéey liggéey soo paree ñibbi seen biir kër loolu soo ko sàlloowee di ñëw heure heure ban la convoqué nga ñëw bañ a beew soo paree jëlaat say bagage dem ñibbi ci seen kër ku lay yëkkati itam yëkkati la ci fulla ak fayda. ñoom ñooy delluwaat toog di la waxtaanee te doo ko fekkee. Mm-hmm. nit a ngi def nag loo xamante ne naka su noonu la nga yaakaar ni kenn yëg ko fekk na booba ñu ngi lay toog di la plateau nii. yaakaar ni kenn xamut lu xew. dëgg la am na solo. nañ am nañ nañ nañ defaraat jikko yi rek. am na solo pour message bi jàll na mais lan kan mooy sa idole ci aar. jaasu. Hmm? jee asu mama jee asu daaray Kocc ah, waaw mama hmm. jee asu dama koo bëgg lool sax dama koo bëgg sama xol hmm. waaw ma yàgg koo suivre yàgg koo xool mu nekk femme bu am fulla femme bu digne buy incarné buy incarné rôle am da xam ne kii li muy def jëmbat na ci fulla ak fayda man su ma koy xool barke Serigne Saliou Mbacké damay yaakaar ne man sama jëm la ah ndeysaan <laughs> ndax dama koo bëgg. dama koo bëgg. macha allah waaw su ma ko wax nag maa ngi koy soog la laaj <laughs> xam ñu ñooy ëttu ndaanaan moom dafa ndaanaane. waaw ndaanaan moom beneen affaire la mais euh, ndaama tey bu ñu tegoon aar xam nga ni ñu tegee lii nii muy yëfu ndaanaan ñu teg ko aar mu nekk nii ñu ne la simple ci aar lii nga xam ne neexu la ci aar lan lay doon. tey bu ma doon simple ci aar. loo xamante ni neexuma lu xale yi def wala mag xëy di ko def loo xam neexulu ci aar daal maanaam xale bi nga xamante ni si xàmmewul succès xàmmeewul succès dafa garaaw nga romb rek ñu ne mu nga ne kaa ñu photo kaa dangay ñëw ci plateau ñuy wax a yow sa doone wuyu loolu nañ koy éviter mhm. te xam ne at mu nekk suñu borom ba yàlla day génne kenn xewal ko yeneen at yee ñëw keneen ay génn mm-hmm. kon nga la waay mm-hmm. tax ba ñu naan la mu nga nee mm-hmm. boole ko ak dignité nanga mel démb ak bërki démb bu la dara bu dara dara jaral nga changé ko nanga mel rekk mel ko ni ndax da ngay romb keneen ñëw bu dee ñun jigéen ñi dañuy daal fi ngay doonee gone fi ngay doonee jeeg mhm. fi ngay doonee jéeg fi ngay doonee mag mhm. pare nañ ci yow dañ naan ndeysaan xoola mère Fadam amoon na fii temps de jeex dara jëru fi lu ñaaw parce que euh, image dafay des waaw surtout waaw day des waaw jaañ naar sama xarit boobu nga xamante ne dañoo ànd mbapatandoo waaw ja soo da jaay ndeyawa ñooñu nekkul ni aar moo ñu boole mm-hmm. dañoo bokk koñ caali mooy Abdou Ndim mii ah, ñun waaw mënta ñàkk waaw doo ma doo benn kaasu ataaya nag mën naan waaw Abdou Ndim yow yow sa jigéen bi tey moom lañu dalaloon ëttu ndaanaan nga ñëw def teraanga yu mel nii wax dëgg yàlla ah lii lépp wax dëgg yàlla yaa ko teralee ëttu ndaanaan ñu la ci sant di la ci gërëm ñaw yi rek doyoon na waaye nag defal ñu yi ndaana defal ñu defal li ci teraanga moom day day daal di day daal di day daal di gën a neex waaye xanaa ñu bàyyi la nga sànni ci ñaari kàddu rek ci sa jigéen bi ah ci waa Dakar waa Thiès 24 ah. kontaan ci bu baax a baax a baax waaw kii moom sama jigéen la moom moo ma dee wax ci moom sax sama xol day fees ndax xam nga ki ñëw ne lépp sama sama lépp yow la kii lu mu sol maa ko ñëw waaw rarement sax lay génn sax bu ñëwloo feneen sax bu ñëwee man ko fay nga ñëwloo laaj ko waaw bu ñëwee dama koy saboote waaw muy jigéen ku baax waaw lu ñoo tamit rek moo ñu boole bi ñuy ànd booba ay suñuy suñuy maam ak suñuy yaay ñoo daan ànd ba nii ñu tool nii waaw ma ñëw tey ñu àndaat nii kon loolu hasard moom la waaw muy sama jigéen ju baax waaw muy ku baax nga man nag wax ma ko mën a wut ni may gisee nii gis ci biti nii mën naa wax nii rek du ma gis nii waaye comme wax ci ay rajo yi yàlla ma ko ah, sama sama rek mu waxal ma rek man grand bi boo ko gis sax dafa yéen ni bu baax artiste bu gi la salaamaaleykum. mbokk yi maa ngi leen di nuyu. yéen ñu fi teew bi def ëttu ndaanaan. Mm-hmm. muy doon loo xam ni macha allah. muy doon lu très rare loo xam ni ku ko seetaan da nga teg sa loxo. Mm-hmm. te doo doyal. Mm-hmm. Fadam boo leen ko jëlee. def ko émission ëttu ndaanaan. jën ngeen ku riis. jën ngeen ku mbapat ci aar bi muy def. ndax ba ma koy xam tey ju yàgg na lool depuis bi muy xale. bu ñu taxawoon di wax ci fàddaam fi mu jaar yëpp ak ni mu bëgg aar ak jullit jullite bi mu jullitee ak maandu bi mu maandul ak baax bi mu baax ku mu gis def na leen boppam fi la ne fanaan kii nag day sama xarit dama ko fonk loolu dama la toog këram mhm. du sëggi xool nit ñu ngi koy gisee nii borom këram du sëggi xool nit borom këram moom yàlla moo ko yar rek te xooloo wóolu kii nag mhm. nga ngay gis nii génn sa jëkkër naa leen nii mhm. kii lu mu def rek neex na jëkkëram mhm. waaye yow wallaay muy ko baax nag yow kenn du yow mhm. ndax yow ba ma xamee dafa yàgg sama day jóge màkk ma wax la ñëw fa ak teraanga yu bari chaque année maa lay jaay xar tabas say bu jotee da nga may woo yow lépp lu la waay di defar rek dalaa fay sa bor ndax booy def lu baax daa ko gis ku def daa ko dégg de waaye ku ko deful daa ko dégg fa daam li nga bëgg ci aar bi yaa ko xam ma nax yéen yàlla daf ma boole yéen yàgg na du tey mm-hmm. dama leen di ñaanal rek fan gudd télé bi nag ca kanam ah, tataso di yem fi ah. ah. dinañ jéggi frontière dinañ dem ba mu ko am waaw te boobaa dara du yomb. grand merci beaucoup kontaan nee nañ la Fadda moom wax ci moom xam naa ne yombul da ngeen a jéem rek. xam oh, kii mooy kan moom kii mooy. ah ngay sekk si ganaar. sekk bisimilah yegg si. Ah, ne ko may aadi sekk. dugg ak laa miji bi ah, ni masira maalaw ak ni masira koor njaay ëttu ndaanaan daal dafa ndaanaane hmm. xam nga ni bu ñu ni rek lay demee akam jom baayu door a ndiib akam jom te gën mi niib abdu boo génne gën leen deme ji bilaam ak laa mi ji bilaam ji bilaam sama waa ji nii rek ngay mel akam man nitam góor fàddaam mi ci ngor geeg jom ji benn maa la mën ngay dégg ak maa la gën du am abdi ndiim gàcce nga laama sama waay ji omaray sa baay aka tëral baayam ba woon Seydina Muhammad jotee woon na baayam nabi te ba dëkk jotee dëkk nga demee jibi laam ak doole jibi laam laami jibi laam nii la sire maalaw sama waay jaangi waayu sëriñ fàllu la xam nga nu ñàkk dara ma ñëw fekk fi fàddaam sama jigéen bi fekk fi sama mag ji asanaal wejji njaay ma xujaaj biram ngóor biram ngóor njóogu séeréer abdou gàcce nga laama salaamaaleykum ëttu ndaanaan mais mais mais kii mooy kat mais aadi aadi aadi aadi yow aadi yow fii réew mi toll li nga fi way nii moom ah. waaw ñàkk laa xam wóorut. xam nga. Mhm. da ngeen def lu rëy. ndeysaan da ngeen invité koo xam ni macha allah maalam mag la day dégg ak maalam waaye du dégg maala gën. Mhm. mbokk ndami Souleymane Diop mi saa xew soxla mbay mu tëggoon di taal jàng yi. mii gën baax atelier bi mu njëkk ko Dakar ca Pikine. Mhm. man boobu maa ngi Dakar ma xam ko bu yàgg may anniversaire tuddee ko. mu def délégation indi ma jardinière yi wàccal ma si junni yi xam nga ñu ngi koy lu ñu bëgg xaalis. ba pare moom mu yor benn jukko joo xam ni du jàpp du bàyyi. Abdou Ndine comme man nitam Faddaam mi toog li tey boo ko yaataloon ci mbedd mi ñu bëri dañuy génn. ay mhm. grand time bëri dañuy génn parce que jina leen ko fay na leen ko fii ci réew mi. démb ji bi ak dóor ji bi laam ak laam ci bi Faddaam. nga def lu rëy nag nga def lu rëy ndax yow sama mag nga yàgg sama mag Moussa Seck la nga def li nga def cuuna mënu ko mhm. te ku soxor mënul lii mhm. sa yëf nga jël ko jox ko mu doon jëfam ayo tamit daa delloo baat waaw mi ngi noonu ëttu ndaanaan la woon seen émission ëttu ndaanaan ñu dalaloon nag Fatou Dame suñu xarit bi euh, Adi Seck daal di ñëw daal ci génn fu nooyo nooy ñuy sant euh, waaw waaw ndeysaan allah suñu rakk la suñu lépp la mm-hmm. Adi waaw kii daal mooy suñu lépp moom lañuy ñuy tiitroo biir Thiès moom la ñu am biir Thiès waaw mu bokk ak Moussa Seck mm-hmm. bokk ak Cheikh mm-hmm. suñu papa waaw bokk ak baro sama jëkkër mhm. sama xaritu bopp waaw <laughs> bokk ak sa dagga waaw sa dagga mook sa dagga bokk baay waaw waaw barke Serigne Touba Mbaye Diop Fari Mbaye waaw non cekkeen boo duggee cekkeen xamal ne ay ndaanaan rek fa nekk mais mais loolu loolu may leen ko foog ñu barke Serigne Touba parce que ndaanaan moom nii la foog ñu fépp ku artiste nekk dañ la fekk def yëpp ndaanaan mm, mais kontaan naa <laughs> loolu dina ma neex ëttu ndaanaan la woon ak euh, ndaama ñuy am mbégte ak kontaante dalal loon ko nag euh, ci ëttu ndaanaan di kontaan lool ci nangu gëm ñu nangul ñëw ëttu ndaanaan euh, ñoo ngi leen di sant di leen gërëm xam naa beneen yoon ci beneen numéro incha allah